ñu ngi indi nuyoo ak ñaan bu Cheikh Mouhamadulil Muntaqa di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi tam may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam lépp mu mën ko def ni mu ko bëggee te naandu ko ak moom sëriñ bi mi ngi yónnee kàddu yi nuyoo ak cant boo xam ne amut fu mu tàmbalee amut fu mu yem ak mbëgte mu rëy rëy rëy ci bis bu tedd bii di bisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koo xam ne mooy soppeeb sëriñ bi mooy léppam mooy royteefam mooy sëriñam mooy royukaayam te moom lanu borom bi subhaanahu wa taala digal ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana sëriñ bi ci lool rek la nekkoon Cheikh Mouhamadul Muntaxa nee na sëriñ bi bi biñ koy gis lépp ci borobam la nekkoon talutoon leneen biñ ko noppee gis boroomam a ko fi nekkal loolu waxtu wu nekk mu di ko baamu muy sant bu baax ci ni ñu taxawee guddi gàmm gii nga xam ne lu sëriñ bi fonkoon la loo xam ne moo ko daan defal boppam te ba ko tàmbalee yàgg na lool mën nañoo wax ne moo maaseeg yoonu murid wala mu jiitu ko ahyaytu mawlidi nabii min achachin wa qaada lii fawqal naa fii xam chachin kon loolu yàgg na lool sëriñ bi daan ko defal boppam daan ko defee nii ñu koy defee di jàng xasaayid yi di jàng barzanji bii nga xam ne day nafaraat siiras Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba mu feeñagul ba bi mu yegsee sànq bi ñu gëmee ne yegsi na defe naa ne ñëpp seen yaram ndaw na seen xol tooy na ñu taxaw màggal gu gan gu tedd goog yi waaye topp siiraam nag ba ni mu delloo ci rafiqil aada boobu moom itam defe naa ne nafaraat nañ ko bu baax a baax a baax waaye gàmmoog ren gii nag doon altine ku ne xam na ne sallallahu alayhi wa sallam bis boobu la fi ñëwoon bis boobu la duggoon makka madinatul munawwara waaye bis boobu itam la dellu woon ca borom bi subhaanahu wa kon guddi gu màgg la sëriñ bi bi muy joxe ndigal di daa wax ne na ngeen ma fasaale sëriñ bi nee na nu fasaale ko kon nag murit bu nekk ci noonu na teewlu ci xolam la mu bëgg rek ma fasal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha te yéene waale ci boppam sëriñ bi nee na na ngeen ma fasaale ndax dafa ne dama leen di yóbbante kat li ma li ma yéene mooy na ma ko daan def di ñëw di ànd ak yéen tey laa ko gën a yéene waaye nag noonu noo koy sakkanal waaye mi ngi fii ci kër gu mag gi di ak ñun ci liggéey bi waaye nee na nañ jot li mbooloo mi ne nañ ko fasaale xam naa ne am lañ koy fasal dana rëy lool waaye luñ ko fasal dugal ci sunu bopp sunu borom dana ko defal toog ci barab bu sell bii ci diggante bii lu nekk ku tedd ki nag yi sunu wet ñu fanaanee tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gu màgg gii luñ ci fas gëm ne sunu borom ñu ko defal ci barkeb sëriñ bi kon lu pas-pas yi gën a rëy rek lu tuuti lay doon ci borom bi subhanahu wa taala rawatina muy ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa nee na nañ ko fasaale kon nañ ko ñaanal sunu borom àggale yéeneem na borom sunu borom àggale yéeneem rek ci sunu waxi donga nag mu yàgg fi lool te amul wér ndax yàggam fi njariñul réew mi la njariñul jullit yi la njariñul doomu aadama yëpp la njariñul àddina bi la yàlla fi yàgg te wér ba motal li mu bëgg a def lépp dana ànd ko ak moom ci barkeb Cheikhul Khadim xasaay yi ñu fi jàng li ci sëriñ bi tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku ko waxoon ku mu mën a doon lu mu am dana la ko jox lu mu am sëriñ bi tàgg na ko ci tàggin woo xam ne mësunoo dégg ku ko tàgge noonu waaye julli na ci ñoom julli na ci moom ci julliin woo xam ne mësunoo dégg ko jullee noonu ci moom te lépp lu mu def borom bi subhaanahu wa taala nangul na ko ko kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikhul Khadim le sëriñ bi waxoon ne nag bu laal suuf nee na bu laal suuf loolu dañ ko war di fàttali waxtu wu ne liggéeyub sëriñ bi nañ ko tawu bu laal suuf te sëriñ bi léppam moo doonoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la doon roy ca njëlbeen nga la waxoon ne yéeneem ak li ko tax a jóg mooy dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax fu bari wa sunnatahu algarra inshaa rabbi ubayinu man nahjuhu ohyi fu ne wax na ko fa yonent bi rek moo doon roy tefam kon ku roy sëriñ ku topp ci sëriñ bi yaa ngi ci li yoon wi nga xam ne moom la borom bi wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha nee na ba mu laal suuf nañ doole fedd li sunu laxasaay sëriñ bi nañ ko nikk ne ko ne ko ne ko ne ko ndëkk téye ko ak sunu fukki loxo te la mag ñi daan wax ne loo fonk da koy def ca bëñ bëgg gën a sori te bul ñepp nañ def foofa sëriñ bi nañ ko ne jàkk rek nañ ko ne jàkk ndax moom sallallahu alayhi wa sallam rek la defoon muy royukaayam kon noonu it nañ def sëriñ bi rek muy sunu royukaay buñ xool lenn buñ bëgg lenn buñ seen leneen lu sëriñ bi ndax loolu rek mooy sunu texe àdduna texe àllaaxira ndaw ñi sëriñ bi mu ngi nuy fàttali ñetti di sëriñ bi njëkk yooyee ca téeram boobee nañ koy nafar waxtu wu ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an il huda huda googee man mooy hadiyullah man yahdi man yahdihillahu fala mudilla lah fu ne borom bi wax na ko fa ci alquranul karim nañ xëyñtu njub googee ca fas yéene cee nekk laa tastaxiloo anil huda day mel ne wax ji bu yemoon foofu tam mu doy sëkk waaye wabil ulumi staxiloo mi ngi ci soññi waat ndaw ñi wabil ulumi staxiloo wabil ulumi staxiloo wax ñu nag nañu jànge tastaqiloo bil xifdi wa tilaawa waaye wajitani boo majalisa shaqaawa majalisa shaqaawa boobu nag ñu ndaw ñi dañ cee war a taxaw di ko nafaraat ndax léegi dafa mel ne doonatul ab jataay bu nit ñi daje waaye jumtukaay la boo xam ne nit ki daf ko yor ci poosam ànd ak moom fu mu jëm njariñ bari na ca lool waaye lor bari na ca kon nañ jëfandikoo ci wàllu googu ndaw ñi la mag ñi daan wax daan roy ak romb lépp lu baax loo xam ne jullite ko moom ñu war ko yor jariñoo ko nañ ko jël jariñoo waaye leneen bu lu dib safaan buñ jéem a xam sax lu ca nekk nañ ko romb rek jàll sëriñ bi nee na loolu bayit la yoo xam ne dañ koy nafaraat waxtu wu ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an ilhuda wa bil ulumi ishtaxilu fastaxilu bil xifdi wa tilaawa wajtanibu majalisa shaqawa wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila huda wa qaida loolu defe naa ne ku meen jataayu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak ñu baax ñi fi nekk kon loolu mooy ndigal li nga sëriñ bi joxoon di sant nag mbooloo yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi def jëw jëwriñi liggéey bii ndax liggéey bi ñëpp a ko bokk guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit yëpp a ko bokk ñëpp ko bokk waaye sëriñ bi nee na taxawaay bi rafet na xolam sedd na nee na xelam dal na rëttiix baatu rëttiix boobu ci sëriñ bi laa ko déggee waat tey nee na xelam dal na rëttiix ci liggéeyu sëriñ bi xam na ne des na ko taw tëddulaal suuf te liggéeyu sëriñ bi rek mooy i'laa'u kalimatillahi al-'ulya i'laa kalimaatillaahi l-ulyaa baabu na ko nee na loolu rek moo fi bàyyi woon sëriñ bi loolu mooy liggéey bi kon nañ ko taawu boobu laal suuf di sant mboolem nag ñi nga xam ne ñoo taxaw ci liggéey bi muy muqaddamatul xidma ak rawdu rayaahiin dañoo nekk ci bopp bi waaye ni ma ko waxee ñëpp ko bokk ak mboolem ñi nga xam ne nag ñëw nañ jàpp leen ci liggéey bi sëriñ Aafiya mi ngi wax ne nañ ko santal ki nga xam ne itam moo waajal barab bii at mu jot mu di ko def ñu ñaanal ko sunu borom yokk kattanam yokk yërëmam waaye képp koo xam ne indi nga fi yàlla nañ dugg ca loolu sëriñ bi wax ne fa man taaman hayya a li man lahu qad qaraa mubajjilan fa xabba a xayraati ahli lhimami wa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi wala bi qadri dirhami la ca topp yàlla nañ dugg ci biir li nga xam ne sëriñ bi digge na ko ci ku duddal guddi gi nii ñu ko dundalee taazimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati te ku ne xam na ne ba timis jotee ba ndëgë bis ci sunna rek lañ nekk istixfaar dikrullah salaatu ala nabi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan borom bi subhaanahu wa taala te yooyu yëpp mooy jaamu yi gën a mag ci jaamu yi gannaaw julli farata yi kon loolu lañ fi nekkee woon noonu la ko seriñ bi daan defee noonu la ko diglee woon noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha diglee yàlla na fi yàgg te wér yàlla sunu borom nangul lu seriñ bi nee na lépp luñ fi indaale ci jàngoro yàlla ko yàlla saafara képp ku fi indaale yitte gi na du diis ci yow lu yomb la ca borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko sunu borom faj ci barkeb Cheikhuna Alxadim radiyallahu anhu ci barkeb soppeem bii nga xam ne moom moom guddi gi yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla def ci jàmm ci àdduna bi yàlla yàlla yokk xéewal yi yàlla yàlla xeeruñu ci ñu doon ay jaamam dëgg dëgg jaame borom bi subhaanahu wa te di ko jaamee nam ko bëggee te mooy jaade ko ci li nga xam ne moom la wàccee ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa maa ataakum rasulu fa xudu wa maa nahaakum anhu fantahu yàlla yàlla daf ñu teewee ko at yu bari lool te fayal ñu cheikhuna alxadim kem kàttanam borom bi subhanahu wa taala fayal ñu njabootam gu tedd ga sa mbërtal ma ak njëggalam ci ñoom def ko ci mboolem murit yi def ko ci mboolem jullit yi def ko ci mboolem doomu aadama yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu